hello hello everyone welcome back waaw ñu ñëwaat ci leçon yi rek ci jàngu anglais bi tey nag eh, dañuy dëkk yéen ci lesson um, seven and eight pour kon ne vidéo yu mel nii bu leen fàtte abonné ci chaîne bi di uh, leen uh, subscribe and also um, share our videos maanaam kon ne di partage suñu vidéo and like our videos maanaam di kon ne di am suñu vidéo uh, ok let's go ne la leçon yi dëkk ak yéen mooy month maanaam mooy weer yi ak li nga xam ne mooy time time nag bu ñu ko waxee lu bari day uh, nëbb ci biir maanaam bis ak uh, ak yeneen uh, baat yoo xam ni maanaam ci time la bokk dal leen ko jàngal ci anglais incha allah waaw pour commencer lesson yi tey euh, bi ñu njëkk jàng mooy month euh, maanaam mooy weer ci wolof weer yi nag dañ leen jàngal yëpp ni ñu koy prononcé ci anglais ok ok pour commencer number one January January mooy janvier number two February February february my favorite ci français. Number three, March. March, my mars. Number four, April. April, my avril. Number five, May. May ak May ñoo bokk ni nga koy pronounce ba léegi. Number six, June. June, June, mois. Number seven, July, July, July, mois, juillet. Number eight, August, August, mois août. Number nine, September, September. September, my September, like New York pronounce. October, October, mountain my October. November, November, my November. December, December, December, my December. next lesson bi ñuy dëkk ak yéen mooy time ñi ngi jéglu ci numéro yi numéro 8 la war a doon lesson numéro 8 pas numéro 6 time nak buñ ko waxee dafa lamb yu bari maanaam danañ dëkk yéen ci uh, li nga xam ne mooy uh, waxtu yi ak yeneen baat yi nga xam ne ci time la bokk danañ dëkk yéen ci baat yooyu ci anglais insha allah pour commencer number one noon noon mooy digg digg bëccëg ci wolof number two minutes my minute wala minute boji bole s number three hour wala hours boji bole s moy waktu. wala waxtu number four midnight midnight moy digugudi. number five day wala days moy bis wala bis Number 6 Weeks Week wala weeks moja bala s moy ayubes wala ayubesi Number 7 Month wala months moy where wala weri Number 8 Year wala years moy at wala adi Number 9 Today Today moy tai. Number 10 Tomorrow Tomorrow moy suba 11. Now. Now, legi. Number 12. Later. Later, moistikanam. Number 13. Before. Before, lata. Number 14. After. After, moiginao. Number 15. My morning. Morning, my suba. 16. Afternoon. afternoon, ngon, Number 17, night, night, moigudi. leçon yi mujj yi ñu dikk ak yéen tey mooy days days mooy bis yi bu njëkk bi monday Monday my alternate, wala lundi ci français Tuesday Tuesday mooy talata, wala mardi Wednesday Wednesday mooy alarba, wala mercredi Thursday Thursday mooy alchemist wala jeudi Friday Friday mooy ajuma wala vendredi Saturday Saturday mooy samedi wala gao. sunday sunday moy dibeer wala dimanche Well, that is that everyone waaw learning anyone la lesson indi woon class jàng anglais Puram yenen video yu mel nii dinañ ko ne ji subscribe ci seen bi di King Production di ko ne di like seeni videos ak di ko share manam di am seeni videos ak di ko partager ah, pour am yenen video yu mel di leen jox dig daja ba benen yoon inshallah peace out